La CLSAO jouait aujourd'hui son huitième de finale contre le Mexique. Un match un peu fermé jusqu'à la mi-temps. Dès l'entame de la deuxième mi les coéquipiers de Neymar ont changé la donne. Neymar, justement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, marque pour le Brésil à l'entrée de la surface. La star pour William, qui déborde côté gauche et centre fort. L'ancien catalan se jette pour tacler dans le but vide. Le Brésil prend l'avantage devant un but à zéro. À la 88e minute de jeu, Firmino sonne les Mexicains. But pour le Brésil. Sur un contre de Fernandinho, lance Neymar, parti à la limite du hors-jeu, côté gauche, légèrement dévié par Ochoa qui profite Firmino. L'attaquant de Liverpool marque dans le vide. C'est gagné pour le Brésil. Deux buts à zéro. La Belgique jouait contre le Japon. Les Diables Rouges nous ont fait peur en étant menés par deux fois. D'abord par Araguchi pour le Japon. Stupeur ici à Rostov, lancé par la limite du hors-jeu par Shibashi sur le corner droit. Haraguchi s'envole sur la surface, embarque Vertogen et ajuste Courtois d'une frappe croisée du droit. Quel réalisme À la 52e minute de jeu, Inouï pour le Japon qui marque. Incroyable scénario dans ce huitième de finale qui voit le Japon inscrire le but du break. Coup de tonnerre à Rostov. Mais à la 62e minute de jeu, but de Vertogen pour la Belgique. Le corner frappé À la 180e minute de jeu, tête pour les Belges. À la 89e, les Diables Rouges terrassent les Samouraïs. Quel match, but de Châtelet. Quel contre foudroyant de la part des coéquipiers de de Eden Hazard. Ils sont diaboliques, ces Diables Rouges. Ils gagnent finalement Programme de demain, La Suède joue contre la Suisse, la Colombie contre l'Angleterre. Russie 2018, KSTV. Seleção bu waa Brésil nag tey lañ doon jouer seen huitième de finale ci coupe du monde Russie 2018 bi ñu ngi doon jàmmarloo ak waa Mexique match bi nag nekk match bu tëju lool ba ba ñuy dem mi-temps 0-0 lañ def waaye deuxième mi-temps ba mu tàmbalee nag ñu ngi équipe bu Brésil bu Neymar bi daal di soppi xar kanam ñëwee neneen. Neymar mooy ki nga xamante ne moom moo ibbi caaxi dugal bi pour waa Brésil ba ñu footballee nag ba mu def quatre-vingt-huitième maanaam ñaari minute donc pour mu jeex ci la ki ñuy wax Firmino dugal bi pour waa Brésil daal di bloqué ñi nga xam ne ñooy équipe bu Mexique bi mbal boo xam ne la ci la ko ñëw lancé Neymar dem ci limite hors bi daal di dóor bi ci côté càmmiñam ñu daal di koy góol bi laal ko tuuti mu dévié wu loolu tax Firmino mën a am ñëw dugal bal bi ci camp yoo xamante ne góor ba sax nekku fa match bi nag wane ne Brésil moo dóor ñaari bal ci benn ba qualifié ci quart de finale bi beneen match bi doon amoon ci bés bi nag mi ngi doon ndox ci équipe bu Belgique ak waa Japon waaye Diable Rouge yi ñu leen di woowee ñuy waa Belgique tiital nañu lu bëri ndax ba dañ ñax ñaari yoon la leen équipe bi nga xamante ne bi moom mooy équipe bu Japon ma ne bu njëkk bi ku ñuy wax ci moom moo dugal pour Japon mu doon njàqare lool fii ci Rostov bal buñ ko jox la mu dem ci limite hors bi si basi mu joxe ko ci côté ndeyjooram aragut ci tëb dal di dem dóor bal bi mu dugg ba ñu fubalee ba cinquante deuxième minute nag jour bi ñu wax Inouye dugalaat pour équipe bu Japon mu doon mbetteel lool ndax kenn xalaatul woon ci huitième de finale yi équipe Japon bi jiital ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bu waa Belgique waaw ba ñu fubalee nag ba soixante dixième minute de jeu nag Vertonghen dugal daal di sauver honneur bi dugal pour waa Belgique ñu dem ba ci kanam ñeenti minutes rek moo ci tegu kii ñu wax felay ni daal di jóg mbëkk bal bi ci biir caax bi ba ñu fubalee nag ba mu des benn minute pour mu jeex ñi nga xam ne ñoom ñooy jaabal rouge yi daal di tëral samouraay yi daal di leen reddi ki dugal bii bi nag ñu ngi koy woowee Chadli contre buñ ko jox mu daal di dem bal bi ñëw ci tànki ko mu daal di effacé mu jàll ki ñuy wax Chadli daal di dóor mu dugg équipe bu Belgique bi nag tey wane nañ seen mëni lool ñoom ñoo mujj daan équipe bu Japon ñi ñetti bal ci ñaar ba qualifié ci quart de finale bi programme bi am suba nag mi ngi dox ci diggante Suède mooy joué ak Suisse Colombie di joué ak Angleterre Russie 2018 KSTV